Euh, dañuy joxe li nga xamante ni moom lañ tuddee subvention di ko jox ñi nga xamante ni moom mooy ASC yi ndax ku ne xam na ne nawetaan dafa xaw a metti waaye ñun ñu jàpp ni comme suñuy jeune lañu war nañu bu ñu tollee ci moment bi ñu accompagner leen ak li ñu tuddee les subvention waaye boo seetloo ren yemale ko rek ci ASC yi ndax jàpp nañ ni am na yeneen activités yoo xam ne ñi ngi am ci dëkk bi te ay jeunes ñoo koy def boo xoolee ci football bi nawetaan baa ngi fi boo xoolee basket bi ngi fi. boo xoolee handball bi mu ngi fi boo xoolee athlétisme bi mi ngi fi boo xoolee ñi nga xam ne sax mooy ñëw la croix rouge ñoom seen bopp nekk nañ ñoo xamante ni dañuy liggéey bu baax ci activité de jeunesse ñoo tax ren dañ leen a subventionné. mais yemuñ ci lool rek organ de presse yi nga xamante ni ñi ngi ci Tivaouane c'est des rajo communautaires ñoo xamante ni dañuy def liggéey bu mucc ayib ak même ñi nga xamante ni ñoo yor la presse en ligne jàpp nañ ni war nañ leen accompagner ndax liggéey bi ñuy def du leen du Eh, tas xibaar yi nga xamante ni moom mooy xew ci dëkk bi te ñu ngi koy defee en tout cas defin bu am solo moo taxoon ñu ni tey jii ñëpp ñoo xamante ne rek ñi ngi yëngatu war nañ leen accompagner ci subvention yi jàppale leen pour que ñu mën a def seen liggéey ni ñu ko bëggee. waaw gis nañu ni nga xamante ni mooy final coupe du maire ñu jàpp ko le 5 euh, maire bi taxawaayam lan la ci. waaw final coupe du maire moom euh, mooy li ma wax sànq rek Mamadou Sy Mbengue euh, depuis mu ñëw ci boppu maire bi ba mu faloo la bis ni tey coupe du na fee am. waaye tant que maa ngi Tiwaawan coupe maire day am donc boobu ba léegi aussi yàlla mu ngi koy dimbali at mu nekk ñu organiser ko ah, def ko defin bu mucc ayib yemalewu ko sax ci Tiwaawan parce que am na dëkk yoo xamante ni tey dañoo am jafe-jafe pour bokk ci li nga xam mooy zone yi nga xam ñoo nekk Tiwaawan mooy dëkk yi nga xam dañ leen a yokk ci biir Tiwaawan at mu nekk daf leen defal ni muy defee coupe maire fii noonu la koy defee fële nga xamante ni moom mooy zone u Yajin non la koy defee aussi fi nga xam ne zone Kër Birima donc tout ça pour rek accompagner sa jeunesse ren nag mu comme tel nañu commencé bu sañoon euh, dañuy fexe ba euh, nawetaan du dugg bu baax baax ci année scolaire bi motax mune mu ne na moom le 5 bu féké ñi organiser paré nañu le 5 incha mën nañu organiser li nga xamante moy mooy finalu coupe mère waaw ci walum subvention yi gis nañ ni 80 000 loon daaw ngeen def ko ren 100 000 francs. waaw 90 000 euh, boo seetloo sax chaque année subvention yi dafay yokk

moo mu jox ko enveloppe bu 1 million pour jàppale len pour que ñu mëna gëna en tout cas compétir ku ci melni ni club bu melni ni Kuli nga xamni momi dafa ne ci championnat bi mu jox ko 500000 francs pour que ñomit ñu mëna en tout cas def un bon championnat. mais dal euh, grosso modo lepp lo xamanteni mi ngi yëngatu euh, ci walu sport ak japp yeneen discipline. la commune de Tiawan mom dafa taxaw pour accompagner len parce que lo xamanteni en tout cas yow la ko yàlla dénk da nga wara fexeba en tout cas ñu def ko ci anam yu mucc ayib. wa sang ci sa biir wax gis nañ hôpital ma Abdou Aziz Dabakh dal di manki li nga xamanteni moy direct gis nañ nga nga àddu ci yu baaxa baax. waaw ci ñax ay sey ñu taxaw ci taxaw bu am solo. très bien donc lolu vraiment dañuy def day dañu koy tuddel yi wax un acte citoyen acte citoyen moy tay ji nga jog pour indi apporter dara sa askan ba moy day jël rek la waaj a borom xam-xam bu reuy ba. nii bul xool lan la sa mën a réew defal waaye yow xoolal li nga mën a defal sa réew te defe naa ne tey ji dem contribuer à sauver des vies maanaam maye sa deret nekk na loo xamante ni nekk nag citoyen moo tax ma ñaan ASC yi bu ñu demee si koñ yi ñu ñu wax ak xale yi mag ñi sensibilise leen ñi leen maye deret dara lu dul euh, dundal ay doomu aadama kon maa ngi leen invité waat encore une fois ñu bu ñu demee si koñ yi ñu gën a ñaax en tout cas askan bi pour que ñu gën ñu dem hôpital Maam Abdou Aziz Dabakh mayee fa deret ndax bu buñ ko defee dinañ dimbali ay doomu aadama yoo xam ne soxla nañ ko waaye sànq boo dégloo ci sama biir wax aussi yemuma si loolu le maire de la commune de Tivaouane ren dafa def dafa teg li nga xamante ni benn coupe la comme ni muy tegee coupe maire pour quartier bi nga xamante ni moo gën a set ci

Bon, en tant que président de l'Interzone, vraiment climat de satisfaction là, j'ai amee chaque année pratiquement nous avons jox subvention mais tey bon dafa gëna neex ci xol parce que vous voyez, ñu avons la surprise maire ni dafa yok subvention pour l'ensemble des ASC yok subvention aussi pour euh, les dames de Tivaouane yok aussi ci organes vraiment vraiment climat de satisfaction rek la ñam bon di leen ñaanal liñ mën ren yalla yalla def

ndaxte à Tivaouane du discipline nawetaan rek moo am yeneen corps ñoo fi nekk te boo leen seetloo au niveau de Tivaouane pratiquement sport bi daf fi am responsabilité bu ngand de ce fait ñëpp dañ cee bokk kon képp koo xamante ne yaa ngi yëngatu fenn rek. té municipalité bi war la mëna jappalé ñun dinañ def suñu lay katan waxtaan ak ñom diisoo ak ñom ba ñom trouver terrain d'entente ak ñom ba ñoon ñu mën leen cee boole ñu bénéficier comme tout le monde. wa gis nañ tamit euh, wax na ci walum lampe yi est-ce que lim ci wax tamit di ngeen ci bayyi xel. bon xam nga walum lampe yi du gestion wu nawetaan walum lampe yi je pense que la municipalité dañ fa am gardien bo xam te ne lañ bayyi stade koku nak ñu fa tek je pense que mom mo wara mëna saytu lolu ñun pratiquement moom nee na douze mois sur douze lampe yi day fay tàkk te boo seetloo nawetaan deux à trois mois la koy utiliser. kon ma yaakaar ni ñoom ñoo jéem a war a xoolaat seen organigramme xool ba xam nan la ñuy waxtaanee seen gardien boobu ñu fa bàyyi en attendant ñuy mettre sur pied comité de gestion boobu euh, bu ko defee je pense que dinañ ci am benn benn kii benn usine bu heureuse. bon moi comme comme comme lima wax euh, ci ci sank moy que ni rencontre nañ les autorités municipales ba commencer nañ ci def ay jéego te yaakaar naa ni duñ ci arrêté parce que aussi ñun tamit duñu tok du continuer ci dynamique bi à chaque fois. Euh, dinañ leen ko rappeler parce que insécurité moom fu mu am rek sport véritable fa donc de ce fait jarbaat fa fa donc sécurité ñun gérer donc c'est impensable que tey jii xale ci kaw bi bi daanu comme la fois passée donc li wax prévenir que guérir ñun luñ ci man lu ne dinañ leen ci gën a pousser pour à ce que loolu ñu ñu am ci satisfaction pour tout le monde. Euh, par rapport ak le 5 bi ñu jàpp mu soxal wàllum final coupe maire bi est-ce que yéen pare ngeen pare ngeen pour amal bis boobu. non loolu je pense que loolu wax waxtu bu dajee gestu la. ndaxte ñun depuis avant-hier bi ñuy fubal sunu premier quart de finale lañ bëbëtoon ni bon euh, cette fois-ci comme nous avons a démarré nous avons télé a def finale ba Japon, la date du 5 mu coïncider ak mars bon mu wax bon climat de satisfaction lay donne quoi vraiment dafa sommes ni ñun suñu gént moom daf ko daf ko bah, merci beaucoup. ok je vous remercie.